برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناظر الحق بالحق ولا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرحنا ما نعن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم نيجي بسم الله الرحمن الرحيم بوك mbokki julli yu góor yu jigéen ñi ñuy topp yal na yàlla jël seen téléphone di woote rawatina ñi nga xam ne dañu dañ di bakk barkelu ci daara ji ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne nag darsub tey bi ñu ngi koy ñëwaat ci yonent bi sallallahu di wax jaam yàlla fan la fi daaw bàyyee ko dund bi neex na ñu ngi doon wax nangam boo ko waaye bi ñuy indi tey mooy fi daaw ku sa mbokk génn àdduna te yenam yéex mën nga ko defal ñaan gi ñu bugg a wax tey yàlla boole ko ci wàll way aljana ñu jëlee ko ci fu wér ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp kuy dund te demagoo mën ngaa fi daaw sa bopp sunna nag ci lay wax man ak ci alquran ak ci fiq dugguma ci ay buxaaba dugguma ci nangam boo ko defee nangam mel ni mbir mi see yoo la nekk mbir mi yaw yàllaa ko moom rawaa solo nañ ani nabi alayhi salaatu wasalaam solo nañ jëlee ci yonent yàlla mu sallallahu alayhi mu wax ne isaa qaala al abdu jaam bi waxtu wu waxee bismillahi rahmaani rahim waxtu wu ko waxee moo xam lim ba nag waxu ñaata waaye danañ ko wax si bu ko waxee qaala dana wax ahlul janna ña nekk ci aljana ne ko labayka wa saadayka labayka hoyu nañ la yow yàlla wa hoyu nañ la hoyu ak nangu tan ak teraanga allo ma yow buur ba inna abdaka nag sa jaam bi diw xaala wax na bismillahi rahmaani rahim wax na bismillahi rahmaani rahim bu fekkee mu nga safara mu ne allahuma yow buur bi axrij yu génnee ko mina naari ci safara wa adxilu dugal ko fi jannatika ci sa aljana kon da nga ciy déggee ne kii wax bismillahi rahmaani mu ngi dund te deyagut moom it eh, waa ajjan aljana buñ ne waa aljana nag nit ak jinne ak malaaka ñi nga xam ne ña nga fay nekk ñooy waxaandoor yow yàlla ñu ngi lay hoyu di la nangul sa jaam bi wax na bisimilah rahmaani rahim bul ko dugal mukk safara na ko dugal aljana kooku duggagul kon fi daaw ñu ngi ko jëlee ci maanaam buy bisimilah rahmaani rahim eh, yaa ngi def eh, douze mille moo gën a siiw fii ci ci senegal waaye douze mille bi nag dama leen bëgg wax fi mu bàyyee ko soo jëlee. Eh, douze nga multiplier ko ci mm, bi ma wax léegi mille vingt sept mu ngi lay jox dakk sa baya dakk sa baya mooy douze mille trois cent vingt quatre boobu danañ koy fi daawoo waaye mag ñi nag ñaaree trois cent vingt quatre yi dañ koy log douze mille bi rek la ñu joxe bu fekkee douze bi yaa ngi ko multiplier ci mille vingt sept mille vingt six bi ma waxoon mille vingt 1026 lu tax bisimilah rahmaan di nekk 1027 bala ñoo nekk 26 rahmaani googu xajaan googu léeg-léeg mag ñi dañ koy rootal buñ ko rootalee nag léegi nag mooy nekk 1026 muy 9 jaameo 9 cent 114 multiplié par 9 nga jëlaat nag mille vingt 1026 boobu multiplié ko 12 12 xarafi lay ilaaha illallaah 12 la bëccëg bi 12 la guddi gi 12 la weer yi 12 la lépp fukk ak ñaar la. fukk ak ñaar yow mii bu fekkoon dañoo dem ci ilmu nujoom xam kam biddiw ñu bëgg la wax ci yow lo xam ne du lañ mukk buñ xasee xam e, bés bi nga wa ak weer bu mana doon mën kalken ba sa burju buñ la waxee sa burju nak, burju boobu lu mu wax ci yow du deñ mukk moo tax nag ñuy jël douze e, te ci salat faatee mi mbi douze la dus moom ken ñu ko wax mu jeex xanaa dang ci mos rek douze fukk ak ñaar mukk ken ñu ko jeexal waaw nga de bu ko defé nga jël moo tax montor ci lem ci douze lem waaw mu <laughs> douze da nga ne un deux trois quatre cinq six onze douze nga taxaw <laughs> ay mbira fa ne loolu ci elmu nujoom la ci benen xam-xam la waye na yow mi bu ko fi daw nga jël 1026 ko 12 mo jox la bay sa baya bay sa bayaam mooy douze mille euh, euh, euh, douze mille trois cent douze douze mille trois cent douze fukki junne ak ñaari junne ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar képp ko def ci bismillah rahmaan xëy na yàlla du la dugal safara yàlla du la dugal safara am na xisa yu bari waaye du fa xej képp ko defal sa mbokket surtout ku génn àdduna wala ku génnagul àdduna yëpp la nangu fi daaw nangu na kii dund defal ko kii dund nangu na kii eh, ki dund defal ko ku dee nangu na kii dund defal ko boppam fi daaw nag xam na ci bisimilah rahmaani muy douze mille xam na ci laa ilaaha illallaah muy juróom-ñaar fukk soixante-dix mille soixante-dix mille xam na ci eh, eh, astaghfirullah ba tey soixante-dix mille waaye soixante-dix mille nag ci xisa boobu xisa bu ne xam na ci mooy waaj a toogoon taam fu wax bi euh, euh, wax bismillah soixante-dix mille euh, laa ilaaha illallaah joxoon ko boppam ne fi daawoon na ko boppam foofu benn xale di xam xale bu toog di xam kasfu bàyyi nettali na ko ba tey xale bu moo am kasfu toog ne diwa nga ne ñu ko yóbbu safara ni ñu ne na bu ko bu fekkee yaayam jéggalu ko dañ ko yóbbu safara ñoo yaay ji yaay ji ne moom du ko jéggal léegi nag bi mu waxee lool rek waa ji nga benn waay bu fa toogoon fekk def na laay laay la soixante di mille ne man de may naa ko fi daaw ko boppam foofu noonu rek yaay yaayam ne euh, yaayam ne may jégal naa ko bon bi mu ne jégal naa ko te ñoom ñaar yëgoo yëgoowuñu rek ñu borom kas bi xale bi reyaa ne mu nga nee ñuy dugal safara ñu mu nga nee ñuy dugal aljana bi maanaa doon nañ ko dugal safara xam ku toog kas fu ne diw ñu ngi koy dugal safara xam ku toog fekkoon na def na fidaaw boppam na may naa ko kooku ña fa ne woon ñaan yaay ji ne du ko may kee def fidaaw bi may ko ko mu toog rek ñu ne mu nga nee ñu ngi ko yóbbu aljana bàyyi mu ne da nga ci déggee ne kas fo xam na da nga ci gëmee ne fidaaw xam na da nga ci gëmee ne ngërmande wayjur xam na ndax aljanatu taxta aqdaamil umaat ñu ngi siyaare ñëpp xul walaaw aat li gën a wér dafa yàgg moom dañu xitaaqatul kubra hitaqatu kubra ci xul wala waat mooy téeméeri junne xul wala waat wai bul ko bulu bu la do doo ko def benn bés boo defee tey fukk boo junne marqué boo defee suba junne marqué ba ba nga am téeméeri junne xul wala ku ko defal sa bop wala nga defal ko nit la sakka kum neex kum naqari wax nañ ne kooku aljana la jom ndax ñu ne moy hitaqatul kubra ci hadith yonent bi ci téere bu ñoo wax euh, fawsul azim bo fa demé dang ko fa fek yi may wax ni lu ne rek man na la wax téere bi ma koy fawsul azim moy hitaqatul kubra mana fi daw bi gëna a moy qul wala wa téeméeri junne xam na ñuy wax 124000 mais bobu xisa wërut wala bu wéré demul ba ci yonente al sallallahu alayhi wasallam téeméeri junne bi ak ñaar fuk ak ñent koku limu yonnati la waye téeméeri junne qul wala kep ko def defal sa bop wala nga defal ko nit ci mbolo ko def wala kenn ko def nanguna fi daw yima ya, fi yow ya, yom nangu na ku ko def rek aljana nga yëm moy hitaqatul kubra hitaqatul kubra moy goregu mag ga nga xamne ganna ko jam du ca teggu non la ko yonntu yalla sallallahu alayhi wasallam solo waye nak sartaqul wala an mo ci gën metti ndax bo commencé di def qul wala mo xam bes bu ne juróomi nga ci def mo xam bes bu ne junne nga ci def lu mën xew fi nga commencé qul wala ba fa ngay eh, do wax do jog waaye nag bu la nga cey war a def keroog pare rek pare nga nga lim ko di ko def ba ba ngay amee téeméeri junne ba buy yow la buy kan ko yéene ñoom àll la jom kazalika bismillahi rahmani rahim kazalika euh, laa ilaha illallah kazalika astaghfirullah loolu da nga ciy déggee ne ñeent yooyu ma joxe mooy dagg hijab yu mag yi bismillahi rahmani rahim day dagg mboolem kiiraay laa la illallah day dëgg mboolem kiiraay qul wallahu ahad day dagg mboolem kiiraay استغفر الله داي دغ مبولم بكر تقوامه البكر تلك ولا ذلك هي ولا هو ذلك هو او او, أو تلك هي الحطاقه الكبرى غرق مغانغو تلك هي حطاقه الكبرى سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر موي فوج نيك جودو بابا مي دي بو ba fajar ga muy dugaatee ca aljana ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare pee ba di ñaan yàlla suñu xalifa bi yàlla wéral ko ci jàmm mu der si ci réew mi ci jàmm eh, sëñ Mahi Niass yàlla xaar ko xaar njabootam sëñ Mahi Cissé porte-parole yàlla xaar ko xaar njabootam Cheikh Tidiane Cissé ak fu mën a ne yàlla ko xaar njabootam doomi sëñ Aliou Cissé yëpp ndax Baye daf daan wax ne bu daan tukki dafa maa ngi tukki sëriñu Sëñ Aliou mu ngi tukki waaye yéen seen sëriñ mu ngi fi kon ñu ngi siyaare njabootu Sëñ Aliou yëpp di siyaare pay bi yëpp di siyaare doy bàyyi góor ak jigéen di siyaare muqaddam yu mag yi yu ak yu ndaw yi yëpp kat bàyyi bàyyiwuñ kenn di siyaare nag xaasatan suñ sëriñ suñu soppe Cheikh Mouhamadou Amin Ibrahim Baba di siyaare Baye Haadi doomi Cheikh Mouhamadou Haadi Ibrahim suñ soppe suñ xarit suñ sëriñ ci zaahir suñ sëriñ ci baatin ñu ngi ziyaare ñëpp di nuyu kër diine yëpp di ñaanal ñëpp tawfiix di ñaanal kër diina yëpp bisimilah rahmaani moo ko samp alhamdulilah rabbil alamin ca la ñuy dund te awaaxiru daawana alhamdulilah rabbil alamin kër diine yooyu nañ dundal toujours ci leer ñëpp xam jàmm rawatina xalifa généraux yi ñu ngi ziyaare jullit yëpp rawatina ñi nga xam ne ñu ngi gob seen téléphone di ñu xoo di ñu rawatina ña nga xam ne léeg-léeg sax ñu defal ñu yëfi taalibe yàlla rek leen mën a fay ñun nag mënuñoo faj aajo kenn yàlla mooy faj aajo ku ñu ci ñaan looy wax nañ leen ko dañ ko wax yàlla subhaanahu wa ci ay tegtal yuñ xam yoo xam ne yi ci bu wéruwaay bu wér lañ ko amee di ñaanal faju aajo ñëpp di ñaanal fayda tijaaniya point com di ñaanal suma njoboot góor ak jigéen man sumay jabar samay doom di siyaare Sénégal yëpp ba mu kenn suuf si suuf si Sénégal gi yéen a fi yàlla wàccee xéwal ak jàmm ak naataange seen soppe seen xarit al imam Mouhamed Djibril barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tijaan jox ñu ñuy naan